Mojito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yep, yëpp ñu Senegal, ko Sénégal si anam yu sell te naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh. oh dina yok sen kattan bolé si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nak vito sont accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag nac. nak nek si emballage civilisé te ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison na di ñoo di waaga ànd ak i ndaaya ña ko ngi feeb aa boppam la ca naa xanaa gisoo ñanko yow xamoon ñanko doo la kan mooy ñanko baam la ca naa xanaa gisoo ñanko yow xamoon ñanko doo la kan mooy ñanko ñanko dafa leew mi ngi kon mag lay kekkal toog ñanko ba bu jàng booy rangu soot ñi waaw ñanku def lew di luube lagalu loolu du doole nekk ci koñ bi di tooñ lekk ànd ak ndaa yaa di yoole boo koy seet fii mi ngi boor be jaroon na nii léegi fël fe taxawalu du toggale su papam di wax ak mom du ko faale ñànku ben kilot lay sol ben chemise sans bouton ak dënn bu ñuul tànku neen fu mu toll ak jaal bi ci suuf teg si boppi jaxasoo lool daf la defa mu wax waxu nit ba nga foog ni kii moo ko xel bi day dem ak dig noo daal léegi day way fala ma leen jaay fala ma fala ma leen jaay fala ma jaay day way fala ma leen jaay fala ma fala daaw fas yéene ko ren yàlla may nu ñu eggal ko si jàmm ak salaam waaw leen rek moo si nekk de sa koor gu ñëw nga yaakaar ne bu déwénee mooy tane ñu yamati waaw ay koo dem seeti mu naan la dina baax dina baax te doo xam la kañ lay baax la kañ bu la la la la nangam dina baax sax sa sa xel mën a dal waaye dina la di nga baax te maa ngi jëm mag bu ñu ba ñank foo ko xool si moom gis fab karaw nga xam ne man doonatuma goné <laughs> baa dima lidikile. ba hein? baa dima lidikile lidikile. lii loolu. lidikile mooy maam nga nga ma jéem a di wax di di di wax ay sama kaw affaire yoyu dé dé dé dama né mu man demee ba gis bu ku xool ñànku gis ni féppam amna karaw xamni man doonatuma goné waaw dama bëgg wax ni man mag la légui maa mais sama. waaw ah. bu ko féetale kalaw kalaw parce que soo xasee tudd sama kalaw rek. waaw ah. gars sànqal la dañu kone ci kalaw gi. déedéet mais mandargay nit si doon na mag doon na mag day feeñ ci karaw. waaw karaw. man na moo tax ma. waaw waaw da mooy may jéem a li dikkile. waa ci sama kalaw waaw waaw gars yi su ñu sama kalaw ba jeex sama kalaw. waaw dañu xuus si kalaw gi. waaw nañu am si karaw kaw gi rek man bu may wax karaw kaw moo tax may wax ndax mu demee bay xool ni mag laa mag la karaw boppam la ñuy xool boo xam bay jaaw na buñu gisé be jaaw ñu né diwa ngay jëm mak nak gis na karaw bop ba nga weex tal dengam nga ma déedéet samay deel yemale na fu ma koy yemale ya nga teggin torop ana malikum ba xeyna aha ko moom tay teel na xey de xëy na ah nee kan mo mo malikum ba wol wa wona ah bu ko de mo mën ka gëm wala ma ko ma ko de kon alhamdullilah ndax Malick Coumba si kër gi la nekk du xëy du gont ñu naan jàppal kumbafi Coumba fii bàyyi Malick Coumba fii utalu ma ko métier moom moo xëy utal bopp métier bu ko neex ne ma papa am envie jàng métier nangam. léegi léegi ki lay kan boo Samba xaw Samba man. waaw ah, donc fël fël bi dëkk bi. pël la bi. wala ah, moom non boo ko def pala pala fël fël la. aa ah, da nga am da nga xam beneen saamu bu bokkul ak pël la Fuuta bi. Pokola Pokola kaste nga wax. waaw kaste fii àll bi la wajaade ne. nga wiili. potlaam bi. waaw ba ci kaw. waaw galab galab ne maa. waaw lu ko boobu. waaw bu ko nee ba sës. Ah? nga jàppale gauche. am. fa la dëkk kante bu waaw fa faafol bi. waaw ñu ne soo jaaree. Eh, eh, eh, ma soxlawu maa xam fu mu dëkk fu mu dëkk na man xaritoo ma ab pël boobu. waaw waaw pël moo moo ko jur booy sàmmatu moom saa sa sa sa problème la moo moo moo ko moo moo ko raka kaa dem atelier ngay liggéey am loo ndogoo lépp après maa ko moom ah, yow da ngaa ut xaritu pël la Fuuta Malicoumba ut xaritu pël. waaye oto oto la. déedéet ma man maa nekk fii sama fii nii ma ay jur dégg nga ku yoru ay jur nag doo dajale sa kër ay xeet ndax boo indi indilee pël la Fuuta Maalik ku ma indil ma fi pël mun ngaa xëy dem gànnaar indil ma fi naar. allo waaw waaw ana jaawara jaawara jaawara ana jaawara na ngeen def bàyyi yéen ci jàmm sant yàlla ba ah maa ngi ci rek maa ngi ce rek wallaay maa ngi ci maa ngi ci ci maa ba léegi moom daal weeru koor gi daal la nga waxoon rek <laughs> déedéet ba léegi fuurul. temps yi sax damaa dafa damaa damaa gën a jaxasoo léegi nag léegi damay attaaya su ma attaaya su ma fuuralee mu dog waaw moo loolu ay xeetu ñàkk la waaye comprendre naa léegi dem naa ba miis naa damay damaa roode waaw bu may fóot muy gën a tilim <laughs> yow xam nga ma xam nga ma jërëjëf Anna Diawara Diawara Diawara Aïcha <laughs> Anna Diawara nga lay nuyu. ah. Anna mi ngi lay nuyu. waaw naa la ko de nekkul ci li. ay si nga mi ngi lay nuyu sa bàjjan. ah, ah yaa ngi koy dégg. ko sama Fatak Boros bi ñëwul de Fatak Boros. waaw waaw dina la dina la ko jox. ah dina eh, moom mënut a ànd ak moom. xiib xool am ngeen kaan. xiib xool am ngeen kaan. kan la dugg si naa. ndaa ndaa yaa. nga xam ne beneen la woo bàyyi fen yi ah ako birig sama sama papa ma sama la bàyyi birig yi kii na maa mbay fayta rab maa mbay nga naan fayta rab yow amoo rab damay kat sa xol ne eh, eh. kii kana waa ok fas fas fas fas ali Galu suuf biro ak lii galu kaw teg kaw. lii nga bind lan la ah teg teg teguloo man bi teguloo man bi lii lan la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

miinoo rab rab booy def rab hip hop dafa am ay gaam yoo xam ne boo ci toogee terminaison bi dafa war di coller potu sambre boo ne ngaar dë suuf dem nga mbër la war a jeexee mbër dégg nga lu ma la wax non def ni maali kumba nag maali kumba sa rakk la moom moo waroon a xool ci yow ngay doxal mu topp sa ginnaaw bu baa fi bàyyee dem liggéey mu ngi bëgg a ëpp jom. maa ko bëgg xaalis rek moo ko jugu liggéey bëgg xaalis rek. Ah, léegi nag boo amul xaalis nooy faje say soxla. man maa doylu. ah man maa da am dara bay doylu. ku am mooy doylu yu amoo dara ba nga juddoo ba jonni yàllay tey añ réer man maala ko yoreen. d'accord nag. aha waaw. koo leng koo leng maa seet lépp. koo ren gan koor gi ma ne weeru koor gi loo siy lépp. ndogu lépp lépp lépp lépp lépp <laughs> lépp ma ñànku maa ko zele. Ah. <coughs> sama yàlla banque sa baala. defal naa ko loo gént biig defal naa gént day naxe ñànku ba da ngaa gént for xaalis nga yaakaar fa nga denc xaalis ba xaalis baa nga fa. <laughs> la doon na waaye tey tey loolu dara maam maa zele. laa la may Larang nga sax ci koor gi. ci koor gi waaw ah koor gi kat ñaa ko xam nga ni boo amee sab café. café am beurre boo ci def. beurre am na ñoo xam mayonnaise lañ bëgg. Ah, mayonnaise ah nga toof tas ta meew. meew am mburu mburu xanaa bu weesoo loolu ah, ah, yu yi ngay naan. diwlin de laay soxla si koor sama jëne ba saako ci baanu. saako ceeb waaw man kay genn wàll saako sax bu ma ko amee baax na. baax ma ci saako ceeb. bu taw diwlin. sokola. sokola. waaw. Euh, mayonnaise. mayonnaise. benn pâte chocolat. bu yam. waaw. Euh, baax na. café. café. ah waaw café. Ah, waaw ma mooy café yi café tubaab. ak suukar. ak suukar ak mburu. Ah, ak ak ah. mbulu. mbulu ñaata kilo par jour. bu nekkee man maa fi nekk ak yow ak Malicoumba. waaw ak ak ak awa ba. awa ba sama na ko yóbbaale rek. koor ma ba xool ba tey wax sokotee rek. ñetti kilo baax na. ñetti mm. kilo waaw ñetti kilo da ak yow maa la ko mën a kay bu nekk ah, bu nekk ah. baax na baax na ñu bàyyi awam sax gaaw. ah am problème sama sama xarit la am problème. waaw ah, ah léegi dégg ma li nga wax fii loolu moo tudd yéene nit dina am yéene def dara mais dadul am doolay poos pour mun ko mottali. poos sans mbër. voilà kan moo ko daan. Eh, eh, eh, nga ne ma moo ko daan dama ni la potu sam mbër mbër bi. mbër bu dee bu dee la. bu dee rab la mbër la mbër lay daan le mbër léegi beneen lettre bi nga jël dafa war a jeexalee mbër créer créer beneen mbër bu jeexee mbur mbër fiis mbër xool balaaka mbër la saakees mbër la potu saam mbur gis nga da nga war a créer beneen bu jeexee mbur ñëwal kin kin te ainsi te kin te kin kin Dukunasi naa bi génn naa mburu mburu ci ginnaaw mburu pot sambur nga teg mburu mi pot di si sos di ko Mana maanaam lu nu nduróo nduróo jeexantal maa ngi dem de lu nu nduróo nduróo jeexantal dafa war a kole lay doon arrêté li sax dama eh maanaam waa waa si sëñ nga xoomaay de dëgg la li dama ko yeggali li sa yëf la mën na nekk sa dàkkukaay koor dañ maa financé waaw ku la financé kii moom financé daaw na ñaay ñaata sëñ cinq cent jox bu ah, ma diggee album bu gën mu jox ma quinze mille da nga ci mën a def neuf titres sax waaw neuf titres mu nga ko ci def fët fët day sept de cinq cent dañ ci def clip dañ ci dañ ci def neuf titres yi dañ ci mën a solo ay yëre ba pare def def def démarche yëpp dañ ci mën a am ñaari oto tamit yoo xam ne dañ ci mën a blow léegi dana dugg ci weeru koor ñu ngi ci hmm. dugg xam nga dugu, dugu ma la ñoo génn non dugg dugg nañu yow dugg nga man ngay waxal <laughs> man eh xam naa li tax duggoo moo tax ma woo la ah. ndaay ñànku gënu la gënu la nday gënu la bàyyi waaw gënu laa ris juddu waaw damaa bëgg weeru koor ren gii nga am maîtrise woor ko ba mu jeex tàkk téye drapeau bu weex bi bu la neexee laal bi ma jëndal la ay bootal yu bari nga yor sa bum di di commencé continuer wat di gens waaw dégg nga ma. waaw légui nak koor gi ñun ñeppay bokk wor ñew da ngay wor da may wor bo ndogu jot mu ndogu ndogu bu tok ndogu bu ngéwale <laughs> kafe ak meew ma defal la ci tour sugar de sugar su bay bu sa sam jeex na alhamdulilah. may naan. yow koy nangul ma lor rek. mama waaw aw ma mm-hmm. man xoola benn problème hmm. ah, ji waaw waa ji la mu ñëpp moo tax ma lay yedd waaji woon waa ji du ma lay yedd. yow man bu doon sama waay wut ndox lay doon. ndox damay wut ndox di ko naan waaye yow li ngay jëfandikoo di gens munoo di gens du woor boo gensee dog nga <laughs> dama bëgg nga bàyyi gens bi ba koor gi jeex ma jëndal la ay gens. man xamuma. Hmm. amuma problème aduna. Hmm. ah man sama problème hmm. amuma ko. ma ba ma convaincre. ba ma convaincre. convaincre. moo damay nangu. mais dama bëggoon nga wax ma falax si alxuraan wax ne baaxul wér kenn ko jeex. si aaya bi jërëjëf léegi indi li eh indil ma téré paré ma expliquer léegi bu yalla waccu waaw jox la jass waaw ma def yaram yaramam len wala ginaaw yàlla na la hmm. dóoral. na bu ko hmm. bay wala daax du ma ko bàyyi. du ko ti sama loxo bi la koy ti nga ma góor di mo góor di mo góor mu ci goy. comme am nga yene ba bëgg nga ma jëndal ci ak bëgg nga ma jëndal diwlin nak chocolat ak beurre ak café ak sucre ak mburok ak la say aju yépp yalla na yalla motul sa yene amen wa comme bëgg na bëgg nga japp ci koor waaw nah, waaw comme bëgg ngaa jàpp si koor gi boo toogee ya ba dog jot jëndal mbuusu tàndarma bu juróom nga ne ma papa maa la jox tàndarma bii ngir nga dogoo ko. waaw boo ko defee ba déwén yàlla mën na laa may lii nga mbébét. léegi léegi loo bëgg. Ah. da nga da nga koy bëgg nga wax ne bëgg naa lii. Ah. nga jóg nga dem toog ko yàlla sotti ko waaye soo toogee nag bëgg naa li bëgg naa lii toog fa nga bëgg naa li bëgg naa li waaw ah. loolu du ñëw. yeah. Uh-huh. E e. yeah. yeah. baax yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh dina yokk seen kattan boole si vitamine rek la ñi bëgg soo naturel nag vito soo pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus vito da am choix te ñu defere ko fii ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité Keur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 Vite au jus, le jus fait maison.